asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu xam naa xabaar ñu nii boo xam ne bii sept heures du matin ba léegi maa ngi ko bëggoon a dugal ci groupe bi waaye xam nga rek tabarkàlla ah, jamono bi xawoon a xat lool kenn noonu ah kay xabaar bi nag dafa jëm ci wàllu migration émigration wala migration clandestine bi ñiy tukki di ko faral di nëbb waaw ñuy tey di dugg ci mbëkk mi daal barsa wala barsaq bi pour ñu fàttali ne loolu du Sénégal rek ndax fi ñu ci Arabie Saoudite kenn ku nekk xam na ne seen diggante ak Yémen dañoo am front dañoo am frontière ci xeex bi ak fan yee ñu génn ba léegi sax dafay xaw a dal rek am na migrants yu bari yoo xam ne dañoo jóge woon Éthiopie jaar foofu le dem ci Corne Afrique bi ci Afrique de l'Est boobu ngir dugg ci territoire Arabie Saoudite bi nga xam ne moo di maanaam ci gàttal Makkatal Mukarrama loolu nag dafa indi ay histoire yu doy waar la mu indi mooy maanaam la mu andi mooy garde frontière yu Arabie saoudite dañoo faat ay centaine de personnes waxuma ay dizaine ay centaine bi ci gën a néew mën na quatre vingt dix ci ay doomu aadama yoo xam ne ñi ngi jóge woon Éthiopie ñenn ñu jóge fële nga xamee ne moo di Tchad ñoom nag dañ cee boolewul négocier ndax ñoom ba ban xamee ne ñii seen yéene ndax am na si ñu jàppoon ba enquêté leen Euh, ñoo ñen jàpp it xamoon na leen Arabie Saoudite lañ bëggoon a dugg ñenn jóge Éthiopie ndax xam nga Éthiopie tamit jamono yooyu la ñu génn xawoon na tàng yëpp ba léegi sax ba ba ngay dem boori Érythrée ak yi am foofule fan yi sax lañ tàmbali waatoon di waxtaan euh, seen frontière boobu léegi nag daw làq yooyu nga xam ne am na ci ñooñ ci biir daw làq yi ñoom leen dàq mais am na ci jeunesse bi ñoo xam ne ñii ñenn ñi dañoo jógee Yémen ñenn ñi jógee Éthiopie surtout éthiopiens yi nag ñoo ci ëppoon euh, Arabie Saoudite nag ñoom bu ñu leen jàppee au lieu ñu yóbbu leen ci kaso yi wala ñu def ni ñuy def migration bi mais dañ leen a fetal waaw am na ci lim bu takk boo xam ne bi jege na téeméer nit yoo xam ci ay ci bi dañ leen rey euh, am na ci ñooñu itam la ci gën a metteeti gën caa metteeti bala ñu leen daan bala ñu leen doon tiire bala fetal yi sécurité bu Arabie Saoudite dañ leen doon laaj fan nga bëgg ñu tiire bi xoolal xoolal wax ju doy am na ci loolu nag la boo xam ne bii waa Human Rights Watch ñoom ñoo ko wax maanaam ñi nga xamee ne eh, dañuy yëngu ci wàll ak doomu aadama ak yoon ak benn ONG boo xam ne bii day yëngu ci wàllu frontière yeeg li jëm ci wàllu migration beeg ñiy tukki ci barsax barsax am na ci ñooñ lu jiitu ñu leen di dóor balu fetal dañ leen wax ne leen fan ngeen bëgguñu ñu dóor fa bal bi li may wax ni garde côte yu sécurité saoudienne bi ñoo ko def Euh, rey ci ñu bare bare bari bari ñii ngi jóge woon Éthiopie ñii ngi jóge woon boori Érythrée ñii ngi jóge woon itam fële nga xam ne moo di Yémen kon liñ ciy jànge rek mooy ndekete woo migration clandestine bi dëgg la yàgg na ci àddina tàmbalewul ci Sénégal rek waaye nag ñu xam ne Arabie Saoudite moom def na ci daal liggéey boo xam ne bii respecté wul dara droit de l'homme xabaar baa ngoog euh, ni Sénégal ñàkk ay doomam nag metti na lool surtout la xawoon boo yeeg ci aju euh, ba gaal gi fa jóge woon ban gis ko ci euh, coto Cap-Vert bi euh, juróom-ñaari néew ñoo ci ñoo yoo xam ni moom mënatul leen indi Sénégal set set koor yoo xam ni dañoo toll ci nekkin woo xam ne melakaan woo xam ne wii médecins yi nekk ci Cap-Vert nee nañ mënuñu leen a delloo si ci réew mi moo tax foofu lañ leen di denc seen i bokk duñ leen gisaat waaye Arabie Saoudite moom dañoo fetal ñoom nekkuñu fa sax di xaar naan midi ak une heure deux heures ñi ci bari dañ leen a rey bàyyi leen ci frontière bi ñeneen ñu suur leen ci suuf si Euh, loolu daal la garde côte yu Arabie Saoudite def salaamaaleykum